xalaat bu gàtt. <laughs> ah non non non. <laughs> maanaam <laughs> non non liberté d'opinion. waaw c'est ah, il faut parce que dama am waxtaan bu ñu waxtaan ah, avant. mais liberté d'opinion nit da joxe sa xalaat sa akulaay taala ni nga ko waxee dara tënku leen. waaw am lu ñu waxtaan avant xamante nañ moo tax te damay bañ nga foog ni loolu moo andiwaat laaj bi. waaw déedéet non du du loolu sax. en uh-huh. fait man man je suis parfaitement d'accord ak Birahim par rapport ak liggéey bi nga xam ne moom la CORED war a def parce que ñoom ñooy tribunal des pairs ñoom ñoo ñu war a juger te pour des affaires très privées qui n'a absolument rien à voir ak sax oui bon c'est c'est vrai que ay ay acteurs yu yu yu kii bi ñoo ko ñoo ko def mais ci c'est sur des sujets yoo xamante ne nii intéressé wul Sénégalais yi c'est pas d'intérêt national ñaari nit rek la intéressé CORED génn na ci def ci benn communiqué bay sax artu ñenn ci ñoom ñaar bien vrai que comme ni ko Birame waxee ku ci nekk war am nga ci loo ci loo ci war a mën a xalaat mais ci situation gu mel nii ñoom waroon nañoo nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy jiitu balaa autorité bi di ci jot wala balaa autorité bi di ci dugg tu sais xam nga bu ñuy wax mbirum liberté de la presse ñu am conseil boo xamante ne nii mooy régulé xëy na peut-être ñun dañuy liggéey conseil boobu noonu war naa xawma ndax xëy na peut-être ndax ñàkk doole la wala benn inactivité wala benn manque de nuñ koy waxee wala wala wala nuñ ko nuñ wala wala sax volonté pour bañ a euh, euh, def seen liggéey ni mu waree ci ñoom la waroon bu fekkee ne dañoo gis ne li ñu def méngoowul ak li nga xam ne moo Euh, moom la ñuy euh, wut ci éthique ak déontologie ñu rappeler leen à l'ordre fu mu nekk nii ba léegi gisagoo ko rek génnee wax quoi que ce rek moo wax wala moo moo wax. waaw ma leeral léegi nii nañu teg léegi nii benn film bu bizarre. Mhm. maanaam yàlla ngeen jéggal ma film X. léegi nga gis communiqué CNRA wala ñu teg fi film boo xamee ni. Mhm. ka ca wala téléfilm. Mhm. ka saaga na. léegi nga gis communiqué CNRA. mise en demeure nangam nangam. mais c'est pas seulement ça son rôle. correct tamit rôle am loolu dépassé na loolu. mais ba ci ba ci ba surtout ci journaliste yi te man foofu laay foofu laay aussi tamit bàyyi loo xel les autorités que ne gis nga nit doo ko jiital ba pare di ko fàqatal lu tax ma wax loolu bu fekkee ne ñun suñuy tribunal des per mooy correct. balaa ñoom ñuy def action war nañoo tamit bàyyi correct mu def d'abord action ba pare bu fekkee ne mbir mi mënatuñ ko mun mënuñu ko ñoom contenir mu door a dem ci foo xamante ne nii dañuy ko man je suis foncièrement pas d'accord à ce que journaliste wax dara rek ñu convoqué ko poli bind dara ñu convoqué ko man je ne suis pas d'accord ci loolu surtout nag fii ñu nii nii daal surtout ci te dafa surtout ak situation bi ñu nekk. ah yéen euh, Sonko Diomaye démb lañ toog de teel na de. dañu waxante dëgg lan mooy journaliste bu waxee rek ñu war ko convoquer police convoquer gendarmerie mais loolu psychologiquement ça ça ça traumatise dafay traumatiser nit. am nañu tribunal des pairs ñoom ci boppam ñoo war a def liggéey walla sax ñoom la ñu war a dooleel pour que ñu mën a def liggéey bi nga xam ne moo ci war. ba dootuñu ñemeeti. no wax seen xalaat non mënu mënuñoo mm-hmm. teree wax kenn mm-hmm. xalaatam. Mm-hmm. nit dafay di nit ku ci nekk di nga wax sa xalaat. ci comme ni nga ko waxee nag ci éthique ak déontologie waaye aussi tamit ci vérification d' information sûre boo xamante da nga koy joxe gis. te effectivement. mais mais xam nga fu ma dul d' accord. c' est ma rek. d' accord ci li nga wax. le journaliste. il est qui c' est un citoyen. et qu' est te dit. nul n'est au-dessus de la loi. et nul n'est censé ignorer la loi. effectivement muy man muy sama morom. xam nga sànq nee naa ci parenthèse dafa teel parce que waruñu waruñu mbu booboo président Diomaye Faye Ousmane Sonko premier ministre euh, état bu bees comme ni nga ko laajee sànq dans ta question ñëw matul deux mois rek euh, mu am genre yu mel ni chasse aux ak yooyu. mais attention à la manipulation am na ñu përux ñu ñu ñu pëtëxlu xaw ma ñu ñu ñu ñu ñu. dugg ci dugg ci situation bi. Mhm. pour dellu soit politiquement parlant on a vu des ouais, communiqués politique politiques mm -hmm. bon c'est de bonne guerre amoon na fi ci ay jamono mais li tax ma ne d'accord ma ci Cheikh li mu wax ci côté journaliste mais combien de régime bii ñu weesu ak yi weesu nit ñaata nit lañ fi dugal ci kaso pour opinion le président la république moom ci waxam Bassirou Diomaye Faye bindul woon kiiwul woon de nekkul woon ci presse de wala média dafa bind benn post Facebook ñu jëli ko post Facebook la bind du journaliste du nekkul kii ñu jëli ko moo moo njëkk jiitu ci kaso bi Ousmane Sonko gën ko faa yàgg waaye li yàlla namoon peut-être ci moom noonu la demee mu tey doon président la république moom tey xam naa ni du am lu koy neex ñu ne woo nañ journaliste pour euh, téye ko xam nga démb dafa am lu bari lu nit ñi seetluwul on a arrestation garde à vue Pape Moussa Traoré. mais la ñu levé garde à vue bi. ne mën ngaa mhm. ñibbi bu subaa nga ñëw wuyu si. Mhm. am na yoo xamee ni doo ko wax mhm. ci télévision walla ci rajo. mais am na lu ci xew. ñu ne la Mohamed Gueye woo kiiwuñu ko sax jiw jël si ko. dañ ko yónnee convocation ne ko ñëwul wuy si suba la police ou la gendarmerie am nañu sañ-sañu convoqué wala woo nit ku mën a doon sénégalais bu mu mën a doon c'est pas parce que tu es journaliste li tax ma ne la ni dafa am ñu waroon a jiitu ci loolu def ñu ko ñooñu bu ñu jiitu woon police du leen woo gendarmerie du leen woo lay Naar wax na lu et ça c'est xam naa boo xam ni pour nga yaay ma ci dina compliqué gis nga politique ci presse Va aux États-Unis actuellement où l'actualité c'est Donald Trump avec 34 chefs euh, d'inculpation yoo xam ne yëpp dañ ko ne guilty coupable. Tu vas aux États-Unis dans la presse il y a des démocrates presse des organes de presse yoo xam ne seen ligne éditoriale c'est pro-démocrate am organe de presse yoo xam ne seen ligne éditoriale c'est pro-républicain donc politique ci presse du mais même ci politique boobu ci presse. c'est dans les faits li ñu naan le factuel wala le recherche de l'information mën naa am information man presse démocrate ci républicain loo xamee ne man c'est avéré mais dina ko gaañ moom ma bind ko mais c'est avéré wut naa source yeeg yëpp xam naa ni noonu la demee mais parce que dama am fu ma féete mais c'est que fii dañ koy jàng te mënaguñu ko fii Sénégal dañuy jàng loolu mooy nekk journaliste politique bokk ci politique wala ci parti politique mais mënaguñu ko parce que dañu jàpp ni boo nekkee journaliste ne nii dama féeteeg nguur rek non dangay sànni xeer. Mhm. dangay ngay saaga da ngay non non c'est pas léegi boo sànni xeer nga saaga ñu woolu la nga ne opposition nga bokk ñu woolu kii la ñu ne non non tëj nañ journaliste. Mhm. wala woolu nañ journaliste. parce que da ngay jàng mënaguloo ko. Mhm. la États-Unis di def wala yeneen i réew. ay France ak yooyu ci wàllu politique ci biir média. ñun ko. RFI France li ñu naan CFMM France Média Monde moo yore RFI France 24 euh, nu ñu ko weete euh, ak ay site ak lépp lu jëm ci wàllu média ñoom dañu am benn féete ñu am benn rôle am benn loo xame ni si seen wàllu orientation sur le plan euh, professionnel journalistique bu wute ak BFM TV wala wute ak beneen télévision wala rajo ca France RTI wala yeneen ak yeneen mais tout ça ñun peut-être dañuy doog a jàng soixante et quelque soixante seize ñun suñu papa yi dañ leen di delloo njëkkal parce que ils avaient euh, li ñu naan le professionnalisme en bandoulière xam nga ñoom lan lañu daan ragal c'est une anecdote que j'ai entendue de mon père ma koy ñaanal suñu borom bu wéral ko guddal fanam si seeni jamono da ngay nekk def journal wala def reportage sa téléphone rédaction sonné boo paree rédaction RTS ORTS bu sonné nga ne tey ma dee xamul tax Léopold Senghor woote waxuñu dikk waxuñu police waxuñu gendarmerie c'est le président de la république moo doon woote ne ni Birahim Touré utilise na benn mot ci biir journal bi nekkul woon foofu mooy place nga feebar ko yow mii présenté mhm. wala yow mi journaliste mhm. nga feebar ko lu yàgg sax. parce que am na ku la jugé. koo xamee ne mën na laa jugé ci tubaab bi ngay làkk muy koo xamee ne moo la gën a dégg tubaab tey xam nga lan moo gën a naqari journaliste sa moroomu journaliste ne la grand juum wax ma police woo la de wala gendarmerie mais lii gën a naqari journaliste mooy sa per yow moo taxaw ñu taxawal moo taxawal ñu taxawal correct pour que ñooñu mën ñëw ne la saa waay juum nga toogaat xoolaat sa bopp et c'est un métier boo xam ne da koy jàng ba ba ngay ba ba ngay retraité donc vraiment lii ñaan mooy na fi yam bu dee dañoo juum ñu taxaw jéggulu bu dee dañoo am ay sources ñu ne ñun parce que source dañ koy défendre dañoo am source yu wóor mais même bu dee information bu avérée la même si c'est une information avérée je di et je le répète et je le maintiens xam mooy leen toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ñu ne la way buy way buy këpp gaal kenn xaw ma lan luñ koy waxee. wolof waaw way këpp gaal. te pourtant way la boo xamee ne bu la neexee way ko waaye ñu ne la parce que dafay këpp gaal. doo ko way ci tefes mën nga way bi min nga way bi. Mm-hmm. na nga koy sax neex na waaye mu leeral boo ko wayee eh, ci tefes mu këpp gaal doo téye way bi. voilà dañuy ñëw ak Cheikh ak yow rapidement rek ci beneen sujet bi ñu jógee si ba mi ngi